laylatul mawlidi lasi kana lidi ne sororon bi yawmihi wa ziha salli ya rabbana wa sallim ala ma هو للخلق رحمة ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وضحاه صل يا ربنا وصل ولما وللخلق رحمة ليلة المولد الذي كان لدين سرور بيومه وضحاء صلي يا رب ربنا وصل على ما هو للخلق رحمة وتوالى البزر الهوات بأنقار ولد المصطفى وهاك الهناء لكل شيء وهدى ورحمة لقومه تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وجعل فيها رواسي وأن جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون تذكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم السلام عليكم وجود سيد الأولين والآخرين الذي قال بحقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له فسوا في محبه حبيبه وصحبته باتباعه وطاعته والاستمساك بهديه وسنته سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى صحابته وعترته قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله أخرج البخاري صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال laa yuminu axadukum xatta akuna axaba ilayhi min walidihi wa waladihi wannaasi ajmain fa qaala umaru la anta ya rasula allah axabu ilaya min kulli cheyin illa min nafsi allati bayna janbay fa qaala rasulu llahi sal allahu alayhi wa sallama laa yuminu axadukum xatta akuna axaba ilayhi min nafsihi allati bayna janbay fa qaala umaru والذي أنزل عليك الكتاب لأنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي التي بين جنبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر فقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ faqad qaalu inna fi nafsi taaqatan laa yasudduha illa mahabatu llahi wa rasulih faman lam yazfar bi dalika fa xayaatuhu kulluha xasaraatun wa humum wa alaamun wa humum ala fasiru bi sirati haulai fi mahabati xayri alcibad alladi xasalat lana min faydihi nicmata alijadi walimdad faqad qaalu inna alixsana yastariqu alinsan والنبي صلى الله عليه وسلم هو المحسن إلى سائر الأكوان مع ما فيه من أوصاف حميدة وأخلاق مجيدة قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim الوسيلة وحضنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه وذلنا بملائكة قدسه وذلل بالمؤمنين من جنه وإنسه فقال تشريفا للنبي وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا وفي رواية ومن صلى عليه عشرا صلى الله عليه مئة ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه ألفا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 allahumma farij an ummati sayyidina muhammad allahumma farij an ummati sayyidina muhammad ibadallah inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum aqimus salah allahu akbar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 ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Allah asalaamualeykum wa rahmatullah. asalaamualeykum wa rahmatullah. asalaamualeykum wa rahmatullah. laylatul mawlidi lasi kana lidi ne sororon bi yawmihi wa ziha salli ya rabbana wa sallim ala ma هو للخلق رحمة وزهاء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وضحاه صل يا ربنا وصل ولما هو للخلق رحمته وضحاه لا إله المولد الذي كان لدي نسرور بيومه وضحاه صل يا ربنا وصل على ما هو للخلق رحمة وتوالى البزر الهوات بأنقار ولد المصطفى وهاك الهناء